yow mii di seetaan te abonné ñu ngi lay ñaan nga abonné fàtte bés de notification bi mooy tax bépp bu ñu mën a dugal YouTube envoyé ko ci sa téléphone. tem inondation yi ci biir réew mi gaaw ak dibeer bi ñu génn li fi wal cim ndox ba jur fi waamee ëpp na ba tuuru kenn dafa werantewul ne ndox mi ci yàlla suñu borom lay bàyyikoo te kenn baaw naanu ko da ko neex mu sotti ko ci suñu kaw waaye bu ñu fàtte nag ni kii di Macky Sall mi fi falu tey ak ñoom waa benn Bokk Yaakaar ah, ba ngeen di laaj réew mi la ngeen leen doon wax moo di mën ci mbënd mi dara loolu dafa yàggul dara ba fépp fu ngeen demoon ca ndox ma la ngeen leen doon wax mooy bu ñu faloo lépp jeex ñëpp féex ngeen falu ñëpp yi féey caatum 2012 ah, ba ngeen faloo dëgg la bokk na ci palang bi ngeen njëkk a samp mooy lu xeex ndox mi ah, def ci lu jege junni ci ay milliards bu yemul woon ci wax ànd ak jëf kon tay ñepp gongo la ñuy wax waye mbaxalum docc ngeen ko def di upp askan wi tok di xaar mu ñor ngeen yak ca ngeen tas seen yakar te lepp ngeen xamone ndax nit du nax bopam waye milliards yi dafa war leer ci ana fan ngeen ko dugal duggal ci bir rew mi ba gis li fi ndox mi def bakkan ci rot jege na fukk ci sigi cior keur ya ca ndox ma mëdd ëpp na ñaari témèr bo xayma ña fa doon yewoo xamni njabot yu bari tay biti lañuy metti ci ku ci sa kër tooyul sa xol tooy na ci ñu bare ngi dëgguñu seen i tànk ci askan walaru cëy bu doon ci jamonoy campagne électorale fowukaay lañu leen di def di tëmbaka xuus ak a fotowu ci seen kaw ak seen ay ñaari saakoy ceeb waaye ñu bari ñaari ci askan wi lu ñu leen def merit la ci ñoom bu ëllëgee ba ñu soxla leen lu ñu leen boqal ñu fàtte ne ndox mi jaaroon na fi te nag bu ñu waxantee dëgg mbënd bi ñëpp la mën a bett ba mu des kilifa yi ci nguur gi ñi leen àxtu euh, ci ne ren ndox mi dana bari du jeex du xaaj ñu topp dialogue politique bi ak dialogue national bi te la ñu ca tënkee lépp dara du ci njëriñal askan wi lépp seen njëriñal bopp la ñoom politique yi bu ñu fa waxtaanee woon nawetub ren bii lii ñu dal duñu ñu mës a dal li dal ci kaw ñing ba gendarme sekk yóbbu ko ardo war nañu cee wax jàpp nit ku doon ñaxtu tëcc ko ba mu nooy euh, ci dëkk bu ñu nee réewu démocratie la ak yoon ak liberté bu ñu ko leeralul ragal naa ëllëg ñu tàbbi ci ndumbelaan wasalaam ba beneen conférence